taxaw muy audience bi euh, lan lan lan nga ko gisee. non en fait moom laay wax rek la politique c'est une affaire de gentleman parce que euh, ku war coalition Yewwi di nga waraat coalition bi nekk fii ñi ñi waroon Abdoulaye Wade ay ànd ak Macky Sall tey dinañ ko war bu bu Macky Sall wàccee naturellement y a des gens yoo xamante ni ci nii la ñu bëgg a dundee. Mhm. mais palais dafa sacré euh, te palais institution la président dafa sérieux parce que man su ma enveloppe bi. bu dee président joxu ko ko waaw bu yoroon pistolet ci biir enveloppe bi nag dañu bàyyi suñu président nit mën a dugg ak moom ak chemise bi ñaaw bi teg teg teg teg enveloppe bu toll noonu ci wetam. xam nga xam nga yooyu du du lu xel antenne président mënoo dugg ba accès ci président de la république am loo yoral loolu mënul nekk ku xam pale nu muy fonctionner xam mënul nekk. Ah. mënoo dugg ci palais am dara loo àndal donc. il faut que ñu ñu yéeg a yéegawaat ba nekk ci niveau événement bi Sénégal c'est un grand mm-hmm. Sénégal administration am diplomatie am ñiy liggéeyee Palais Palais Palais camp camp militaire la kon quand ay gendarmerie ñoo fa nekk c'est un du caaxaan nit mënu faa ñëw nii mais président ci boppam fi mu toll ak fi ko sénégalais yi teg ëpp na ëpp na di recevoir koo xamante ni dafa war ay nit pour des raisons ça va montrer que c'est pour des raisons financières te ki ñu ne moo ko fa indi xam nga ñooñu bu ñu jaaroon ci parti sax ñu xam lan mooy culture politique xam. mais sa man li ma gën a metti du waa de li ma gën a metti mooy ñi nga xamante ni dañoo sonn ci parti au pouvoir Macky Sall jaral leen lu nekk lu ne ñu daj ko amuñu li waa am. am na ñoo xamante ni sept ans yëpp gisuñu Macky lu dul ci ay meeting enveloppe bu jox waa ji du ñu leen ko jox ba ilaa yomi din et pourtant Macky Sall la ñuy xeexal guddeeg bëccëg et c' est ça qui fait mal c' est à dire que politique. mais ci ñoom aussi ñu ko ñu ko décrier. mais mais bari ci ñoom parce que leen metti mooy. waa ji mooy kan ba war a ñëw en moins de 72 heures am lii lépp ci parti bi te ñoom ñu nekk ci 7 ans <laughs> amu ñu ci dara moo tax politique affaire de gentleman la gis nga am na ñoo xamante ni mënuloo leen defal dara mais yëg leen yëg leen mais lii insulte la ci beaucoup de militants de la l'APR yoo xamante ne sonn nañ ci parti bi am na ñoo xamante ne xëy na ca fañ dëkk ci Matam xeex nañu ko waaj yi xuloon nañoo ko waaj yi ñu bàyyi leen fi ñëw jël waaj yi indi ko pale jox ko xaalis waaj yi dem léegi waaj bu la leen di xoole yéen seen waa parti sax respecté wuñu leen yéen fi ngeen doon toog di jàppale Macky Sall man mooy contre Macky Sall man lañ jël man lañ yóbbu man lañ jox xaalis man maa ñëwaat te boo deful nag mun nañ ko jox yeneen responsabilité cest à que il faut que ñu xam ni politique li defar askan li defar cité bi ci politique lay jógee donc homme politique ñoo ñu mën a jàppale ba xale yi ndaw yi màgg ba ñu jël exemple yi xam ni politique boo ci duggee da nga choisir defaral liggéeyal sa askan mais ko gis li ku nekk da ngay jàpp ni politique raccourci la pour am xaalis ku ci nekk lii da ngay saaga ba dégg la nga dem jël raccourci bi ñu jox la xaalis nga dem et man je sama xale xalaat yëpp day dem ci les première militants de la l'APR liñ liñ ci daj li ñu sonne ñooñu xoolal métti bu ñu nar a dëkkee seen xol parce que en réalité amuñu lii waa ji am parce que te lii président war a signé journaliste war dañ ko étudiant est-ce que du chèque <laughs> parce que bu dee chèque ça va <laughs> am am enveloppe boo téye te lii mi <laughs> xaw a chèque c'est ça qui fait mal c'est-à-dire qu'on privilégie quelqu'un koo xamante ni mi ngi soog a ñëw ci benn parti en moins de 72 heures am lii lépp am ñoo xamante ni 9 ans ñi ngi xeex ci parti bi amuñu dara mosuñoo toog ak Macky Sall mosuñoo am dara loo xamante ni Macky Sall jàppale na leen donc il faut que ñu jàppale xale yi ñu xam ni politique defar sa réew la sacrifice la ni dangay ngay defaru ba pare am xam-xam am njàng am lépp ñëw pour servir ce pays mais bu bu ñu ko defee raccourci bi ku ne da ngay jàpp ni sa politique nga war a jaakaar pour régler say merci beaucoup Khadim Bamba ñu des ci week-end bi ba tey parce que lii ñu wax ni samedi la dimanche bi ci la ñu dégg itam keneen muy euh, Gaston Mbengue ñu xam ko bu baax ci wàllu wàllu bu bëri wàllu sport en général euh, mu yëkkati ay kàddu donte retiré na ko sax mu nekk ay kàddu yoo xam ni euh, bi mu ko yëkkatee ñu bëri ñaawlu nañ ko wax ko ci famille Diaz ba nga xam ni indi woon moom itam toole bu doy waar Euh, maître Moussa Sakh yëg nga kàddu yooyu bi nga ko déggee noo ko déggee. waaw yëg naa ko comme comme tous euh, di ko ñaaw lu xam nga ñu suñu réew dafa am lu koy mandargaal mooy notre vivre ensemble ça c'est une particularité bien sénégalaise booy tukki dans la sous-région yàlla sutural nañu dem nañ ci réew bi sous-région bi yëpp. Mhm. di wër ci adduna bi loolu particularité sénégalais la mooy notre vivre ensemble suñu teraanga. Mhm. nga xam ne mënoo xam. kii ban waaso la bokk kii ban xeet la ñëppay kaf di ree di sëy suñu biir bañ a bokk tarixa bañ a bokk diine ti seq jàmm donc boo gisee wax ju mel noonu mënoo lu dul ñaawlu ko mhm. parce que dafay porter attente li ñu am de plus cher mooy notre vivre ensemble kon mënuñ ko rafetlu et sa peut porter atteinte à notre cohésion sociale à notre pays civil na du moom rek moo fi wax lu mel noonu dérapage yàgg na fi c'est que pam Ngagne encore une fois gis nga li indi lii mooy la ma wax ci njëlbeen suñu nekkee ci réew moo xam ne nit ñi dañuy jalgati yoon te dara du leen ci fekk coow li du fi dakk avant loolu am na ñu ko fi wax wax ju mel noonu am na benn député bu fi nañ jël ay jaasi est-ce que mujj na fenn am na benn jeune fille oui am na benn ah, jeune fille bu fi saaga ne képp ku bokkul ci tel ethnie nangam mm-hmm. léeg-léeg aussi nga dégg ñenn ñu bokk ci opposition bi wax wax ju ñaaw mais yoon du def liggéeyam mm-hmm. kenn du leen jàpp à partir de ce moment dafay mel ni loolu dañ ko daganal dañ ko légitimer tey wax ju ñaaw. non boo nekkee ci opposition bi moom. di nga ci am jafe-jafe. waaw non non parce que de gis nañ fi ku mel ni Ami Collé Dieng. waxoon lu mel noonu ci président Macky Sall. may ma Pape Ngagne. boo euh, nekkee ci opposition wax lu ñaaw mu jëm ci nguur gi. waaw da am mais même. am na ñu ñenn laa wax ñu ne ci opposition di wax lu ñaaw ñu jëmale ko ci ñeneen man bu may wax si de manière générale li leer ba leer boo nekkee ci kujje gi wax lu ñaaw mu jëmee njiitu réew mi dañ lay téye mais jeu dis au la de ça am na ñenn ñoo xam ne wax lu ñaaw mu jóge ci ñoom dem ci c'est que wax ju ñaaw dañ ko warul nangu ci réew mu civilisé ci état de droit ci démocratie mhm. démocratie li mu laaj mooy débat d'idée mhm. débat de programme dama ne bu nekkoon ne ñëpp ñiy wax lu ñaaw bokk ci nguur gi ak ñenn ñi ci kujje gi ñi koy jëfi tamit yoon dal na seen kaw kon du fi sax mais kon que ñu def nañ ko dara fekku leen ci ñu koy defaat kon dañ koy ñaawlu mhm. et na état bi jël ay responsabilités réew boo ko buggee defar mhm. da ngay teg njoboot gi yëpp ci yoon yemale leen mhm. bennale leen soo ko deful du ñu jóg ci caw effectivement Khadim ci propos Gaston Mbaye Guèye man yow man j'aime bien la la télévision Walfadjri mais Walf aussi ëpp na loolu euh, affaire bi différé la parce que am na télévision boo xamante ne wall li mu représenté ci Sénégal am na loo xamante ni télé bi am na benn responsabilité bi mu am ci propos yoo xamante ni bu doon en direct moom moo responsable euh, Gaston mais différé moo nañ koo dindi la deuxième chose mais Pape Ngagne Gaston à part lamb loo koy invité lan la lay wax Gaston lu mu xam ci yokkum ceeb bi lu mu xam ci ça il faut il faut que presse bi tamit euh, remettre en cause parfois yenn mbir Gaston lan la lay wax ci ci ci ci politique Sénégal lu dul saaga wax ju ñaaw kooku nag buñ koy tendre micro à chaque fois day dem ba waxam jeex te wax bu bëree rek génne asaka mhm. donc à un moment donné bu demee ba amatul argument mais day wax wax joo xamante ni ça peut frapper man je ne sais pas à part la lutte lan la ñu war a mën a xaar ci Gaston mu e mu analyser lu ñu réew mi nu mu mel wala mu wax ñi grève bi nii lay demee wala mais Gaston milité wul Dakar politique wul Dakar. yoonam nekkul ci waa dakaar mais na bàyyi Ablaye Diouf Sarr waa këram ak euh, euh, Diaz. xaritu président Macky Sall. Bartlim mais bu dee xal lii local la local nawetaan la affaire de koñ la na bàyyi waa Dakar wax waxi waxi dakaar waa mais yooyu mu ci dugal xamul ni moo tax booy am xarit amal xarit boo xamante ni voilà parce que lii nii ça permet plus euh, gain la ci Bartlémy perte la ci ki mu faral. Mhm. parce que am na ñoo xamante ni li mu wax Bartlémy. am na nu ñuy jàppee Barthélemy léegi parce que Sénégal dañoo dépassé loolu gis nga Gaston wax ji lu muy rëy rëy rëy métti na Sénégalais de mais Sénégalais yi dañ ko yóbbu au second degré. dañoo dañuy dem ba di koy fooy parce que peuple bi dafa raw trop homme politique yi parce que nos hommes politique dañoo nekk ci man man maa yor lii dama koy téye mu jaral mu lu ne kële tamit ne lii dama ko bëgg a téye mu jaral ko lu nekk mais peuple bi dafa ëpp loolu. Mm-hmm. chaque élection dina ñëw def lu muy def dem toog. mais maintenant ñi nga xamante ne dañoo yor pouvoir pour ñoom ñëpp dañ leen a iñaane pour ñoom wax ji lu mu lu mu rëy na gën a rëy parce que nit ñi dañ leen a iñaane li ñu yor parce que Sénégal politique dafa mel ni natt ñoo ñu ñoo teggi nañ ñëw ak samay waa kër ak suñu wax xarit ñu seddoo mhm. esprit boobu la ñu am ci politique amuñu politique sacrifié wu euh, euh, xañ sa njaboot xañ ah, ñàkk sa vie privée pour servir une communauté mhm. mais dañ ko jàpp ni neex-neex la ñun ñoo teggi natt bi ku ci nekk yow yaa war a am li yow yaa war a am ni yow yaa c'est ñun loolu ñu am ci politique moo tax mhm. boo ci nekkee dangay ngay jàpp nit ñi dañ laa iñaane ok te Gaston boo xool ni muy wax pour ñoom li ñu yor ñii dañ leen ñii bu ñu ñëwee ñoom dañuy yàqule alors que je pense que Sénégal moom assonage njabootam sax xam naa ni foofu la njëkk gën a rusé ndax boo amee njaboot ñuy màgg xamoo ëllëg lu ñu doon nga mën a wax nit waxi taal ak waxi ñii dañoo tuuti Sénégal je pense que dëkk bu am quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans fal chrétien comme président mun ñoom ñu nekk fi cinq pour cent mooy dëkk boobu préparé wu na bu yàgg pour dépasser combat yi. d' accord maître Moussa euh, ñu wax nag ci.